Jibril Ka dëkk fii ci kër Abdou Ndoye maa di nuyu di leen sant di leen gërëm ci teewaay bi ngeen teew ci woote bi ñu leen woo woote bi nag li nii rek la demee nun dañu nekk fii dippi sunuy baay di bay ci ay suuf ba ñu jóge fii nun ñu wuutu leen ci loolu ba nun mënatuñu sunuy doom nar noo wuutu ci loolu ñu amoon fi benn projet boo xam ne bii dañ ko defoon ci biir suuf pour développement boo kam ne bi dafay jëriñ kale yii ak jigéen ñi ñu mën ci am lu ñuy liggéey lu ñuy suturlu ñu bañ a dem ci géej gii di dem ay barsak xaw ma barsak léegi nag depuis Lamine Dramé nii moonu de délivré la woon boobu ci jamono boobu gennaaw boobu lu ñu war a wut ci pièce kayit buñ ñu war a laaj am nañ ko ba des lu ñuy wax baay baay boobu la ñuy laas appel ñaan Macky Sall mu jàppale nu ba ñu am baay boobu ndax nit ñi mën a commencé seen liggéey li ñu doon kar mu ñëw li ñu tere am baay boobu mënuñu ko kam mais li ñu jaakal fi mu ne nii mooy que maire dafa kay benn bés ànd ak benn équipe ñu ne dañuy jaarale tali si biir projet boobu tibb suuf si nga xam ne si moom la ñu war a liggéey nit ñi jëriñu ci bu ñu ko tibbee dootoo ko mën a sàmm dootoo fa mën a béy dootoo fa mën a dëkk nun nekk loolu lank nañ ko tey lank nañ ko suba ba ba ilaa yow mi duun tali bi mu ngi jëm ci biir suñu tool yi foofu la jëm tool yi jëm kañak lañ wax mais jëmul kañak si tool yi la jëm sunu tunda yi la ñu bëgg tibb duñu ko nangu tey duñu ko carrière duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg lii mooy sunuy wax Ndiassé moo ànd ak benn équipe kawma ma nu mu tudd mun loolu du ay cité dañuy wax defuñu fu ay cité dañuy bëgg tibb suuf si dem jaayi ko kaw ma fan loolu nag même bu doon ay cité suñu tool la ñoom ñoom moom suñu moomel war nañu toog waxtaan ak moom nee na du waxtaan ak nun nun nag nuñ koy kaar foofu. mais bi nu mu toll ak lan ngeen fa naroon a. terrain bi terrain bi mot na 700 hectares. mais de yi mooy projet bi. mais te li ñu fi waroon def man mënu ma sax wax seen borom ñëw def fa ba déedéet ay dëkkuwaay 5000 logements dafay am. dafay am ay usine ak yeneen ak yeneen yooyu mooñ lañu permettre woon xale yii. ñu toog xaar loolu loolu nekk ñàkk jot baay moo nu tere ba nekk ba pare nag ki bëgg saboot euh, jaar ci tali di di ko tibb loolu lañ leen waaye fii nu ngi ñaan Macky salla mu dégg suñu wax ji gis nañ ko fukki yoon ak ñaar gis nañu commanda gis nañu suuf préfet gis nañu préfet ku ñu war a wakal ku ne wax nañ ak moom kamal ko ne nun suñu suuf si duñu nangu kenn ku fi jaar amul amul benn saafara waaw li ñu lay wax ne seen seen seen bëgg-bëgg lañ lay wax dañ ne bàyyi leen tali bi mu dem ñun duñu bàyyi tali bi muy jaar jaar suñuy tool loolu lañ ñuy wax li boo koo dem de laan bàyyi leen ko mu dem nangam nangam ñun ba bañ ñu ci dara ku fa jaar di nga nooti nit ñi yëpp nga rey leen baa nga béy tali bi lii laa amoon lu Moustapha Ka dëkk fii ci Kéréb Ndoye nekk conseil municipal ci mairie Kayar coow li euh, ni ma ko gisee rek mooy euh, gàcce ci suñu institution parce que voilà un maire boo xam ne day def sans mu waxtaan ak ay conseil municipal am yoon bi ñuy wax ni li waral coow li man fekke naa benn conseil municipal boo xam ne bi yoon wi amee bi coow li amee askan wi génn yuuxu ñu ngi yoon wi du du jàll moom dafa wootee daar daar def ci lu vingt quatre woo conseil municipal yëpp mu ni nañ ko désaffectel procès bi nga xam ne moom la góor gi wax ba pare mu ubbi benn piste ci biir tool yi sans concertation ak borom tool yi loolu nag jaaxal askan wi jaaxal ñu ñu def benn délégation dem ci sous-préfet dem ci préfet waxtaan ak ñoom ma laaj ko interpellé ko ma ne ndax maire am na droit ubbi tali ci biir àll boo xam ne defoon nañ fa délibération mu ne ma loolu mënul nekk mënul nekk boobu ba pare ñu wëlbatiku waat gisaat sous-préfet ànd ak le commandant ànd ak maire ñëw ci tali bi ñëw ci yoon wi am ay population yoo xam ne mu ngi leen di woo di leen menacer ni nañu ñëw waxtaan fal force ñu nangu mu ubbi piste bi wala moom mu autoriser ko boppam ci fal force loolu nag la ñuy laaj ci ban Sénégal lañ nekk ndax dañu nekk ci Sénégal goo xam ne dañu jël ay étranger jëndee ko askan wi nga xam ne ñoo yelloo seen moomeel askan wi nga xam ne ñoo fal Macky Sall askan wi nga xam ne ñoom ñoo tax état wu Sénégal nekk fii. piste bi mu ngi jëm fu ñuy wax kañak ci li ñu wax. parce que diggante tali bi ak Kañak mot na 4 kilomètres mais promoteur bi nga xam ne moom mooy defar piste bi ci lëmmiñam sama nopp mu ne 1 trois 300 lañ ko fay kon tund yi nekk ci biir àll bi tund yooyu moo leen jogloo mais du dem Kañak tund yi nekk ci biir tool bi yi nga àll bi nga xam ne fa la nit ñi di liggéey yooyu moo leen yëkkati mais du dem Kañak parce que 1 kilomètre ak aggul sax euh, wàcc fett bay àgg wel dañoo bëgg yëkkati tool yi yaakaar naa. ci euh, euh, plan émergent bu bu magis magis Macky Sall bu Sénégal bi euh, mbéy nekk na ci deuxième position wala troisième position kon bu ñu ñëwee bëgg a rey mbéy bëgg a noote béykat yi béykat fan la jëm fan lay jooytu ay ay mbiram ñun amuñ ñu dul yéen ngeen eggee ñu suñu baat bi. mais wax nga ni conseil dañu waroon def désaffectation. def nañu désaffectation bi def nañ ko ma laaj ko sous fi mu ne ma désaffectation bi baaxul. ba pare ma laaj que affectation bi ñu def ci yoon wi mu ne ma affectation bi baaxul sous préfet ci boppam moo ma ko wax le troisième jour de tabaski moo moo ñu may audience moom moo ñu ko wax benn ñaareel bi maire ci boppam moo taxaw mu ne amul tànku gennaaw tànku kanam la am kon ça diir dire que moom day force te même état du forcer pour def li mu bëgg def ci askan wi état bu soxlaa dara day négocier ak askanam waxtaan ak population am luñ ci xamul woon mu xamal leen leeral la leen ko ba ñu nangu bu ñuy bañit ñu xam ci lu ñuy bañ lan la. affectation bi mu ngi amoon euh, bi ñuy waaj a julli tabaski jàpp jàpp jàppuma délai bi mais man maa ngi sama convocation mais suuf si. affectation bi depuis 2012 la le 21 avril 2012. million yi ñu ciy tudd promoteur bi nga xam ne moom moo bëgg tund yi. moom moo taxaw mu ne promoteur bi nga xam ne moom moo négocier ak mag ñi pour Kayar Villeneuve maanaam logement social habitant la promoteur boobu moom moo ne vingt cinq millions ñàkk na ko ci tali bi te gisugul dëgg gisugul yoon wi fan la mën a jaar vingt cinq millions vingt cinq millions yi kan lañ ko jox mën naa la sital turu borom tool yëpp teg sama loxo ci kaamil amul kenn ku ci lekk dërëm kii ci borom tool yi la kii ci borom tool yi ci borom tool yi la kii ci borom tool yi la dërëm joxuñ joxuñ joxuñ ñu leen ko maanaam euh, fii yoon wi war a war a jàll war na mot fukki tool ak benn ko amul benn concertation boo xam ne def nañ ko ak borom tool yi amul. fii sama baay fi njëkk a nekk imaam déglu maa ngi ñëw sama baay moo fi njëkk a nekk imaam 46 41 46 la ñu ñëw fii. ab nu doo jox na àll bi noo ko gor booba ay bukkeeg lépp fi nekk nu di ko bay di ko bay di ko bay ba léegi sii ñu xëy xëy xëy ñu ne ay boroomi xaw ma lan ñoo dikk fi man jànguma tubaab ñu ne dañuy jaar fi dañ ku fi jaar man xaw ma kenn damay sama tool ku fa jaar da nga may rey rey sama njaboot ba mu jeex nga door a jàll barke Seexu Tijaan billaahi wal kitaab yi man alaaj Njaase gi doomi alaaj moo duggee sama baay moo taxawul jumaa ji ci kàddoom la fi taxawee moo fi nekk ko jiite ba bi mu dee ñu jox ko ñu ko yor jiite naa jumaa ji ñeenti at te koy jiite léegi mooy alaaj biram mi maa ko jox mani ko fi am sey kayit jaar ko ci yoon colonel bi dama ko noon bu fekkee da nga nitu yoon nga jëm am foo jëm seetal aw yoon ci yoon ba jàll waaye boo ñaajee doo dem boo ñaajee doo dem mu ne ma dinaa dem bu dee day nag dina xamante ni ña fi nekkoon démb mooy waa Kër Lat Joor yi ba léegi ñu ngi fi xaw ma colonel Diagne lañ wax xaw ma de. colonel Diagne la Diagne. Diagne daal la ñu nangoo wax. Diagne wax turam nee na ab colonel la. ah kooku mooy courtier bi. mooy courtier bi nee na commandant la nee na fii la daan wàcce paara wàcce paara dañ nga moom tool yi nit. nun danoo am ay doomi colonel am ay doomi commandant ñu ngi ci ñu ngi Dakar waaw léegi mu dikk ñu jaay ay ay njàngi tubaab nun tu alxuraan nan jàng mais ma ni dama na bàyyi suñ tool yi way laa jéeg lu am nja arma na ko andi am na ko